mbokk yi asalaamaaleykum jërë ngeen jëf euh, ci ànd bi ak réew mi FM daleen ak jàmm ci seen émission démb ak tey ni ñu ko baaxoo dimanche bu yot ci waxtu bi tey nag ni ngeen ko déggee dañuy waxtaanee euh, am mbir ci wàllu politique muy loo xam ne nag yenn saay mu amal njariñ lool ñu koy dund euh, muy ñu bundu xataal la ba ñu jàppee le victime ñu naan ko victimisation loolu nag ñu bëri tey ci wàllu politique jaaree nañu fa xëy na daal di am bunt ba yegg si fi ñu yegg si loolu la ñu war a waxtaanee tey suñu doyen Pape Amadou Fall euh, doyan ñu lay nuyu tàmbalee aussi jaale la suñu beneen euh, mag suñu nijaay si métier bi muy euh, doyen Soro Diop bismillah jërëjëf soxna si ñu ngi leen di di nuyu seen auditeurs yeeg seen yi sax la ñuy wax alhamdulilah adduna moom ay jéego la di ziar it ki nga xam ne moom mooy Alassane Samba Diop di sunu rak di sunu natango magam jooju nga xam ne moom moo jiitu di Soro Diop doon taskatu xabaar bu ñu ràññee lool eh, yal na ko yàlla atte ci yéen mën dem ko ci àjjana gën a kawe alhamdulillah bismillah mm-hmm. <coughs> alors doyen ni ma ko waxee nag tey dañuy waxtaanee euh, politique euh, wante euh, lenn lu siy xew ñaare ñu naan ko xëy na victimisation maanaam nit ki daal ñu bundu ko ba mu génn fa mu nekkoon wala mu des fa moo xam naka la koy defee waaye loola jaaree doon njariñ ci moom président Macky Sall mun nañ ko ci tudd Idrissa Seck peut-être si si benn fànn Ousmane Sonko ak tey Aminata Touré mi nga xam ne xëy na mi ngi mun nañu wax ne mi ngi nekk si yooyu situation ñu ñu war xëy na xool naka lay def ak moom itam ëllëgëm ak lu mu ci mun a am ñu ñu tàmbalee si kaawu Idrissa Seck euh, moom ak président Abdoulaye Wade gis nañ li fi xewoon mbirum chantier yi bi ñu ko ci tegee loxo ginnaaw gi bi mu génnee euh, gis nañu ni ko askan wi def wante itam ñu dem élection présidentielle mu am taxawaay bu am solo boo xamante ni génnee na ko si euh, lan moo waral doyan bundu xataal boobu ci wàllu politique souvent di di di fayee noonu ki nga xam ne moo ko dundoo jërëjëf waaye xam nga Idriss Seck dañ naan bërki démb la mhm. Idriss Seck bërki démb la bala ñoo ñëw ci Idriss Seck mhm. Sénégal ba mu amee indépendance mhm. les événements de mai de de mille ku nekk nga ci bàyyi xel ba jamono ji ndax fu nu tuddee tur wi ñu wax jaar-jaar ba muy ki nga xam ne moo doon Mamadou Dia. waaw ah, président Mamadou Dia. Mhm. xam nga président Mamadou Dia. dañ ne dafa complot woon pour coup deta ki nga xam ne moom mooy Léopold Sédar Senghor. Mhm. ci jamono yooya. ndax bokkuñu woon gis-gis ci li nga xam ne moom mooy wàllu doxalinu réew mi. te ñu àndoon ñoom ñaar ànd bu rafet ba jël li nga xam ne moom mooy réew mi waaye ce la nga xam ne moom mooy taarix Mamadou Dia wane yoon Senghor àndul ca yoon wa ba assemblée nationale u Sénégal ñu ne pëccëxoo am na fa ñu ne la lu indi pëccëxoo ba ñu ne dafa am lenn ci député yi ci jamono yooye yoo xam ni euh, ci suux suuxal nga xam ne moom la Mamadou Dia defoon ci jamono ñoom ñoo bëggoon a ànd daaneel ki nga xam ne moom mooy Léopold Sédar Senghor la ci jógee moom mooy jàpp nañu Mamadou Dia Valdiodio Ndiaye euh, ak ñeneen hmm. Mamadou Dia turam bu siiwee jàpp googu ñu ko jàppoon hmm. dafa doon loo xam ni réew mi fàttewuñu ko. Hmm. ba bañ koy génne ci kaso su ma juum mu doon 1974. Hmm. bàyyi ko mu nekk fi nag alhamdulilahi rabbil alamin yàlla may ko fan yu gudd. Hmm. foo tuddee ki nga xam ne moom mooy Mamadou Dia hmm. tudd ki nga xam ne moom mooy Léopold Sédar Senghor ñu ne kaso Kédougou ba. wax li nga xam ne moom mooy jaar jaar yi. mu des ci xolu nag. lu bari ci li nga xam ne moom mooy askanu Sénégal ci wàllu bi nga xam ne moom mooy dundam ak taxawaayam ak jëfam ba mujj gi sax loo wax ci réew mi loo wax ci réew mi mhm. dañ la naan bu doon mu bu doon Mamadou Dia bàyyi nañ ko mu defee nii mhm. bàyyi nañ ko mu doxale nii mhm. jubale nii waaw kon de réew mi fii ñu koy wax tey naan mi ngi waaj suuxat mi ngi nekk ci ay jafe-jafe kon du ko dund ndax Mamadou Dia ku nekk nangu na ne. ci mhm. li nga xam ne moom mooy gis-gisam jëme woon ci li nga xam ne moom mooy Sénégal mhm. liggéey jub liggéey liggéeyal réew mi mhm. jub waaye nag am li nga xam ne moom mooy gis-gis moo xam ne bu kawe la pour Sénégal jëm li nga xam ne moom mooy ci kanam loolu jàpp nañ ne ki ñu jëkk a ne moom mooy victime ci réew mi hmm. ci wàllu yi nga xam ne moom mooy wàllu politique hmm. ca Mamadou Diallo woon hmm. alors président waaw waaw waaw bismillah bismillah mm -hmm. alors kon président Mamadou Dia ñu mun a wax ne moom sympathie la si jëlee cofeelu askan wi euh, ginnaaw euh, victime boobu nga xam ne nekkoon na ko euh, te te lépp aju si si wàllu politique digganteem ak euh, président Senghor peut-être bu fekkee dafa am loo loo bugg a yokk si Mamadou Dia doyen bala ñuy jàll. waaw xam nga xam nga ñu bari sax ci wàllu bi nga xam ne moom mooy mm. <coughs> la Mamadou Dia. Mm. def ci réew mi. Mm-hmm. xamuñu ko. waaw ko. Mm-hmm. man mii di ci wax ak yow luñ ci bindul. Mm-hmm. dunduma ko ndax booba tu tànk la. dëgg la luñ ci waxul binduñu ko xawma ko ndax booba tout tànk la te ci nettali yi nga xam ne moom la ñuy nettali daf ci am benn bon xam ne fa laa bëgg a taxaw. Mm-hmm. rek pour wax la euh, jikko yu rafet ak. jëf ya nga xam ne moom la Mamadou Dia bëggoon a indi ñii di taxawaalu tey wala bokk lu bari ñi nga xam ne tey dañuy fàq ci la nga xam ne moom mooy seeni dëkk ñu ne dëkku kaw gi dañu ñeme baat bi rek mhm. ñëw ci fi nga xam ne moom mooy ndakaaroo wala yenn gox yu mag yi di fi ñëw di tàncaloo ci ay néeg mhm. fukki ci benn néeg te mën nañoo daan seen doole ca fa nga xam ne fa la dëkk lu mel noonu Mamadou jaa daf ne woon warul mën a am ci li nga xam ne moom mooy réew mi ma jox la benn mandarga ci ni mu fonke li nga xam ne moom mooy liggéey mm-hmm. ca lañu ñu nekk li ma jot ci doomam ci boppam doomam bu jigéen doonoon na secretaire u ñenn ci ministre yi suma ma juumul dañ ne ministre euh, euh, euh, Louis Alexandrin la woon ca ca jamono huit heures du matin daan na fekk Mamadou Dia fi nga xam ne moom mooy bureau hmm. huit heures du matin mu woo secrétariat ministre boobu ma tudd léegi di Louis Alexandrin téléphone ba sonné ba moom mu coupé mu wootewaat def ko ñetti yoon mhm. kenn wuyu mu soog a woo bureau ministre bi ci boppam mhm. ndax danga jot ci assistante assistante bi jox la ministre bi mhm. moom la mu jiite woon jiite woon gouvernement bi secretaire bi la woo assistante am te mu doon doomam jotu ko mu def ko ñett yoon ci la ko jéggee woo ki nga xam ne moom mooy ministre bi ministre bi daal di wuyu moom. Hmm. fekk na ko ci bureau mu wax la muy wax ba mu daanelee ne ko mais ana sa kooku xaw a nakk-nakal. Hmm. mu ne ko mais da may wax ana sa mun mu ne ko dafa ñëwagul mu ne ko na ko dàq. <laughs> doomam laa la wax te doomam waa. doomam loolu dañ loolu dañ ko nettali. Hmm. waaw te doomam la mu ne ko na ko dàq waaw kooku na bëgg naka nakal mu ne ko boo ko daqul ma dàq la hmm? na ko daq culte li ñuy wax le culte du travail dafa am foo xam ne dafay toll ci réew yu mel noonu xam nga dégg-dégg bi hmm. nga xam ne moom lañ ci am hmm. ak it mu jëme woon réew mi bëgg koo jubal ci wàllu li nga xam ne moom mooy taxawaay mhm. jigéen ñi nga xam ne dafa am nekkin moo nga xam ne moom lañ daan nekk mhm. ci jamono yooya mu taxaw ne lii mënta wéy ci réew mi mhm. wàllu bi nga xam ne moom moo jëm ci wàllu mbay mu taxaw ci ne et cetera et cetera lu li ñuy wax ci Mamadou Dia mën naa bari lool li nga xam ne moom mooy taaram jëme ci li nga xam ne moom mooy euh, taxawaayu réew alors bu ñu jógee kon ci ki nga xam ne moom mooy Mamadou yaa mhm. nga tudd euh, premier ministre Idrissa Seck mhm. xam nga ànd bu rafet mhm. lañu gisoon diggante ki nga xam ne moom mooy président Ablaye Wade ak doomam Idrissa Seck nee nañ ma diggante Idrissa Seck ak ki nga xam ne moom mooy Ablaye Wade 1987. la hmm. lañu commencé li nga xam ne moom mooy seenub ànd. mi ngi bëgg a yàgg 1987. Hmm. Ablaye Wade mi ngi soogu ci politique bu Sénégal. 1974 ca la sànce woon li nga xam ne moom mooy parti mooy parti démocratique sénégalais. Hmm. Idrissa Seck 1987 ñu ràññee ko ci wetu góor bi mu doon xale bu tuuti. ci jamono yooyu waaye xam-xam bu rafet indi ko ci wetu góor gi ba góor gi ràññee ko fonk ko te ko ñuy ànd kon ñuy ànd ci li nga xam ne moom mooy seenu xeex ndax boobu ñu ngi ci ku gi ànd ci seenu xeex ba l'an deux mille booy xool ci diggante bi diggante mille neuf cent quatre vingt ak mille neuf cent quatre dix seize bi Ablaye Wade di dem kaso eh, di dugg ci gouvernement wu Abdou Diouf ak yooyu yëpp Idriss Seck nga ci wetam yaakaar naa ne fal nañ ko ministre benn yoon ministre du commerce mm-hmm. jamono yooyu mm-hmm. ba l'an deux mille Ablaye Wade jël li nga xam ne moom mooy nguur jël Idriss Seck teg ci wetam def ko directeur de cabinet ba l'an deux mille quatre ba jeexalee li nga xam ne moom mooy fête de l'indépendance su Sénégal ca Thiès mooy deux mille quatre ca la coow la tàmbalee ci ñu dafa luubal alalu réew mi wax ji lool. Mm. tuuma yi bari lool. mbiram chantier Thiès yi. ñu ne faaw nu audité. Mhm. jël Idrissa Seck ne ràpp ci kaso bi. nekk ci li nga xam ne moom mooy lëñbët googa mujjul jur dara. mujjul jur dara. ñu ne Idrissa Seck dafa am loo xam ne moom la bëgg moom mooy wutu góor gi. te daf ko commencé fësal lii moo tax ñu indil ko li nga xam ne moom mooy fi fitna ci tënk de. Mm-hmm. ba ñu gisul ba ñu oh, ñuy lañ bët. Mm-hmm. loolu lañu ñu dugalaale ci li nga xam ne moom dëxañaale ci li nga xam ne moom mooy wax ji. Mm-hmm. Idrissa Seck dafa bëgg a wuutu góor dafa bëgg nangu li nga xam ne moom mooy parti bi coow li ne kuur am Idrissa Seck am Ablaye Wade am Karim Wade nag. politique daal moo ko loolu nga xam ne moom moo ko lal te ñu gis ne góor gaa ngi jëm mag war naa mën a ko nga xam ne daf koy wuutu ñu ne ko ci gën a yell mooy dauphin mhm. ku ci gën a yell ci askan wi njàngat lépp wëlbatiku jëm ci ki nga xam ne moom mooy Idrissa Seck ñu ne ah yore woon na parti bi nekkoon na ci wetam comme premier ministre bu fekkee kay dañuy wut ku gën a yell ci koy wuutu góor gi ñu ne war naa mën a doon Idrissa sek maanaam daal ci li nga xam ne moom mooy xalaat yooya moo indi fantaseri diggante Idrissa Seck ak ki nga xam ne moom mooy góor gi gannaaw ba nga xamee ni dugal nañ ko kaso ba yoon taxaw nag ne wax dëgg gisuñu lenn loo xam ne moom lañ ko mën a toppee waaye Idrissa la mu ci jëlee moom mooy taxawaayam ci wàllu yi nga xam ne moom mooy wàllu politique daf ko daal di may gëdd mu mel ni escalier boo nga xam ne da nga ko yéeg ñu ne nag dem nga ba ci étage yu gën kawe dem nga ba ci étage yu gën kawe mm-hmm. te mu am nag li ñuy wax détermination ba mu xësee ba woon gannaaw góor gi. Hmm. ca ko daal di woon gannaaw rek. Hmm. am na ci ñoo xam ne def nañ ci pexe yu nekk waaye mu mooy fi mu mooy rek ba daal di moom moom it nag fësal li nga xam ne moom mooy parten wane bëgg-bëggam pour yore li nga xam ne moom mooy moom mooy réew hmm. doon la présidence de la république defe naa 2007 la woon jot ca woon waaye terewut ràññee nañ ko ci li nga xam ne moom mooy géewu politique bi mais mm-hmm. kii kat xalaatam yi nga xam ne moom lañu ñu dégg ndeyte am na amoon na ci ay wax yu sew sewaan ak e, ci li nga xam ne moom mooy communication mm-hmm. waaye e, la ca ëpp solo mm-hmm. mooy nee nañ nañu bàyyi xel ci moom wàll bi nga xam ne moom mooy politique ba pare jàpp bi ko jàppoon métti ñu bari ñu xaw ko sotle mais wax nga dëgg duut baaraam ca loolu dafa am solo. Mm. sotle bi. Mm-hmm. ndax euh, te loolu dinañ ci dellu si waat mm. euh, la daloon Mamadou Dia ca ca jamono. mbeete moom xëccoowul woon sax réew mi ci la nga xam ne moom moo doon taxawaayam waaye dañu ràññee woon rek ne ci ku am solo la ci dundu réew mi nga xam ne moom mooy réewum Sénégal Idrissa Seck moom ci li nga xam ne moom mooy jamonoom joxoñoon nañ ko ci ne ku war a mën a yore réew mi la ku war a mën a yore parti démocratique sénégalais amul loolu lépp waaye indi na li nga xam ne moom mooy partem jox ko gëdd ba askan wi nag lu ci bari bare bare lay wax jox ko li nga xam ne moom mooy eh, eh, jub eh, jubluwaay mais am na yaakaar ci moom ngir ëllëg incha allah waaw ñu wëyal euh, daal di wax si peut balaa ñuy yegg si Macky Sall ki nga tudd sànq Karim Wade euh, Karim nekk doomu président ab lay wadd moom itam xaw a dund euh, situation boobu est-ce que mun nañu ko méngale kaawu Karim Wade ak bu Idrissa Seck bala ñuy ñëw ci président Macky Sall. méngale bi dina jafe méngale bi dina dina ja dina jafe léete moom it ci wàllu nga xam ne moom mooy jaar-jaar. Mm. dinañ ne ah. Euh, victime la waaye moom fañ fa mu dugaloon euh, tànkam wala fa ko dugal moom mooy dafa luubal li nga xam ne moom mooy alalu réew mi booy jël ci dunduk ki nga xam ne moom mooy sek ne téeméer boo jël ci euh, doomi Sénégal mën nga nangu ne juróom benn fukk yo wala juróom ñaar fukk yo Euh, amoon nañ sympathie demee ci ki nga xam ne moom mooy Idrissa Seck ci li nga xam ne moom mooy suma jàngat man gannaaw bañ ne Karim Meïssa Wade mm-hmm. ñu ne dafa luubal alal réew mi mm-hmm. bu fekkoon da ngay xayma da nga daan peut-être fanweer fanweer ak juróom mm-hmm. ñi nga xam ne ñoom ñoo bokk ci parti démocratique sénégalais surtout ñooy ñi nga xam ne ñoom ñoo doon xeexle ki nga xam ne moom mooy Karim Meïssa Wade ndax lu ëpp dañ ne kii kat bàyyam dañu ko bëggoon a buux mhm. sampal ñu ko par mhm. ba pare joxoon ko super ministère li ñuy wax lañ doon wax le ministre de la terre et du ciel <laughs> ah. waaw donc mu doonoon ko xam ni euh, euh, euh, kàllaamaam setul ci wolof mhm. ba mënul woon yëkkati ay kàddu yaatu ci li nga xam ne moom mooy euh, xolu ñi nga xam ne ñoom ñooy askan wi hmm. waaye nag ba ñu ko tuumaalee ne dafa jël li nga xam ne moom mooy alal réew mi euh, campagne de communication bi nga xam ne euh, ay ñooñam def nañ ko waa parti démocratique sénégalais surtout hmm. dañ ko dañ ko jëme ci ne kii deful dara hmm. nanu ko bàyyi liñ ko toppee daan yi ñu ko teg jëmul lenn rek ci ne dañ ko bëgg a bunduxataal waaw affaire du affaire politique euh, affaire politique la du affaire alal joo xam ne luubal na ko ndax preuve yi nga xam ne moom la CREI yi génne mooy tribunal ba nga xam ne moom la ñu sampoon ci jamono yooyee ñu di ko topp euh, ba teg ko li nga xam ne moom mooy ay daan lu CREI yi ñi nga xam ne ñoom ñooy avocat yi Karim simple ba mu set wecc ne li di wax dara amu ci donc jaar-jaar yi mi ngi noonu ci li jëm ci ki nga xam ne moom mooy Karim Wade mhm. ba tey ba tey ba mhm. tey daaw nañ daan nañ ko mhm. eh, mu génn réew mi wala ñu génne ko réew mi parce que foofu ba léegi man dama ci am jiixi jaaxa leeragul ci kenn kay <laughs> waaw waaw ñoom ñu ko sekk doo nga ñoo ñu wax lu ci ne moo tax ma ne man dama ci am jiixi jaaxa parce que ñu ngi wax exilé euh, le protocole. Mm, boo nga xam ne moom moom moo amoon ci li nga xam ne moom mooy digganteen ak euh, waa nguur gi. Mm. ba xaaju ko fi jëlee. Mm. génne ko yóbbu ko fa fa ne moom mooy Qatar. Mm-hmm. xañ ko ay droit civique am. Euh, ba fi mu toll nii. waaye moo am ñu ci mooy nag. Mm-hmm. ñoo xam ne rek. te su fekkoon ni li tax ma ne la méngale bi ak Idrissa Seck dina jafe. Mm-hmm. soo déggee ñu wax Karim rek li ci ëpp waa parti démocratique sénégalais waaye surtout kuréel ba nga xam ne moom la sampoon muy génération du concret mm. ñoom ñoo ci gën di ngawti ngawti ba fii mu toll nii mm. ci ne Karim dina ñëw Karim dafa war a ñëw. Mhm. Euh, alal bi koy topp et cetera mais est euh, yaakaar nga ne politiquement euh, li mu jaar noonu mun na ko amal ay retombées positives maanaam xëy na askan wi ndaxte des fois nga dégg ñu ñu ñu jàpp ni président Macky Sall dafa xeex Karim Wade pour une telle raison wala pour une autre mais est ce que tey Karim Wade loolu mu dundu mun na ko amal ay ay njariñ si wàllu politique nit ñi gën ko bëgg xëy na nit ñi xaw a daal euh, am yërmande sotle ko mm. comme niñ defoon parce que en général sénégalais dafay dafay jàppale lool ku ñuy néewal doole lool moom si si ñun la bokk. Euh, tudd nga Macky Sall dinañ ci ñëw. Mm-hmm. tudd nga ci ñëw. Mm-hmm. Euh, xam nga réew mu bariwul doole. Mm-hmm. day bëgg di am li ñuy wax ay symbole. maanaam nañ yemale ñëpp képp ko xam ni ci wàllu nga xam ne moom mooy sa taxawaay am na loo xam ni war nañ koo mën yaakaar ci yow mm. rek euh, askan wi pour ñu teg la gët day doon loo xam ne lu yomb lool yenn saa sax di nga gis nit te loolu duñ ko jëmee ci wàllu politique mm. waaye dangay gis nit bu amee lëndëm tuuti ci daan yoo xam ne daan nañ ko rek mhm. bu génnee bu dellu see ci fi nga xam ne moom mooy goxam nit ñi dañ koy daal di jël tóoj ko mhm. fàtte la xewoon lépp fàtte mhm. xamuñu amuñu benn benn euh, certitude ci na wala kii deful xam nga foofa mandoo fa war ku mel noonu waroo ko mën a jël ne kii nag tey dañ koy def suñu royukaay ndax dara wóorul la. Mhm. ci li nga xam ne moom mooy doxalee na. Mhm. waaye da daal di gis ñu jël def royukaay te kooka mën na doon koo xam ne wax dëgg fa yàlla euh, lanu koy tuumaal dafa leerul rek. Mhm. waaye mi ngi ci biir comme nag mën naa bañ a nekk ci biir. mais loolu dafa bokk ci li nga xam ne moom mooy jikkooy waa euh, euh, yenn ci waa Sénégal yi. du wax ni waa Sénégal gépp. dama naan yenn ci waa Sénégal yi. waaw parce nag. Euh, ràññee dafa jar mm-hmm. ci li xam ne moom mooy doxalinu nit mm-hmm. lu ma wóorul du ca dugg mm-hmm. bu neen kii def na def na bu ma amee lu ma mën jox ay jumtuwaay ba ma ah loolu ñu wax de wér na ma ah kii jar naa jàppale kon mu jaral ma sax xeex pour nekk ca wetam waaye su ma wérul wax dëgg fa yàlla ci préfère ma mandu mm-hmm. li jëm ci ki nga xam ne moom mooy Karim Wade bari na ñoo xam ne mm-hmm. tey dañ naan dañ ko jàppale moo tax may la surtout lu nekk ci camp wu PDS mm-hmm. ak génération du concret parce que soo bàyyee xel na Fatou li nga xam ne moom mooy réew mi yeneen parti politique yi la ca ëpp doo leen dégg ñu tudd Karim Wade doo leen dégg ñu jegeñ Karim Wade dëgg la waaw mais li jëm ci ñi nga xam ne moom mooy ay ñooñam hmm. génération du confrère parti démocratique sénégalais certains de de le de de de le sympathisant hmm. oui oui oui Karim Wade victime la hmm. man ñemewu mën a victime la parce que comme ñun dañoo nekk ci wàll nga xam ne moom mooy suñu métier di gëstu di ay journaliste lu ma rele leerul du ma ci sori waaye nag mën naa am parce que àdduna dafa tëdd noo xam ni mbett yenn say mu am ci hmm. xam nga politique dañu la naan dañu la naan du biir day wasin hmm. Karim Wade mënoon na ne cëpp tey Sénégal gépp fàq ànd ak moom la yàlla rek a xam yàlla rek a xam alors ñu ñëw ci président Macky Sall moom itam mu dund situation yu euh, xam ni xëy na mënees naa wax ne victime la ci woon ndax euh, ci mbirom Karim Wade justement la ñu ko dàqee assemblée national dàq ko parti démocratique sénégalais wala mu mu mu gedd bàyyi euh, loolu yëpp daal mën nañoo jàpp ni tey bokk na si li xàll yoonam ci wàllu politique ndax ci la génnee taxawal APR élection présidentielle bi mu njëkk a bokk ci la doonee président bu Sénégal kon moom mënees naa wax ne victime gi mu doonoon amal na ko ah, ci jaar-jaaru réewum Sénégal moom président Macky Sall ba fi ñu toll nii tey mooy ki xam ni moom la gën moom la mbir mi gën a amal njariñ hmm. gannaaw bañ ko tegee ay tuumam ah. daan ko moom ci wàllu boppam mu am fullay fipp bañ mais du du ma ko nangu yàlla jàppale ko ak ay ñoñam ñu jàkkarlook ki nga xam ne moom mooy Ablaye Wade daan ko ba yore réew mi tey Assemblée nationale bu Sénégal la Macky Sall yore woon Macky Sall dañ naan ablay Wade moo yeggale li nga xam ne moom mooy tabaxam ci wàllu politique ndax gannaaw yàlla ak yonent bi nekkoon na fi ci ay parti surtout ànd jëf yaakaar naa ni su ma juumul euh, mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit wala euh, yu mel noonu daal ci la tekk ki nga xam ne moom mooy Ablaye Wade ci parti sénégalais doom cadre mu am loo xam ne jotoon nañ ko ko ci jiite banqaas mooy bànqaasu cadre yi Ablaye Wade def ko ministre defaat ko ministre ba na mu ko falee def ko euh, premier ministre jële ko premier ministre def ko euh, président assemblée nationale yooyu yëpp mu doon ay jaari jaar yoo xam ni ci wàllu politique day tax nga tekki waaye yéeg bi nga xam ne moom la yéeg tey gannaaw yàlla ak yonent bi ba doon président de la république dafa joxoñ ki nga xam ne moom mooy Karim Meïssa Wade mais kii nag foog ñu lañ bët ay mbiram ndax ni mu yoree ministère yi mu yoree aha ah, coow la jóg mm-hmm. waaw Ablaye Wade nee na nee nag man sama doom indi ko ak surtout xaalisu OCI bi sommet biñ fi doon organiser ak travaux yi corniche bi fàttali bi am na solo hmm. fàttali bi am na solo pour man ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ñoo ànd ak ñoom du ñu déglu hmm. dafa am réew foon xam ne bu fa tolloo hmm. ci wàllu yi nga xam ne moom mooy doxalin euh, ku nekk ngi fàttaliku livre Abdou Latif Coulibaly ba Mekong mm-hmm. comptes et mécomptes mm-hmm. Abdou Latif Coulibaly lañ bët li nga xam ne moom mooy yore ni la jëmoon ci liggéey yooya ak yeneen sax kon loolu dafa gën a tax sénégalais yi bàyyi xel mm-hmm. ca Karim Meïssa Wade na mu yore woon li nga xam ne moom mooy xaalis ba ñu ko dénkoon ndax xaalis bi nag dañ ko koo dénkoon mm-hmm. Ndeye mooy président de la République mm-hmm. en tant que ministre lañ ko jëloon dénk ko li nga xam ne moom mooy doxalin mm-hmm. ci réew mi ah coow la ba mu bare ci li ci li nga xam ne moom mooy loolu diggante bi Macky Sall nekk na fi nga xam ne moom mooy assemblée nationale Macky Sall ne nanu gëstu gis nga dafa am benn bis ma toog ak kilifa gu mag mu ne ma ah. gis nga buur ma ne ko ah, ma lu suufam rek bu ko jegeñ hmm. waaw buur buur lu nekk suufam bu ko jegeñ mm. wala boog boo leen dee jegeñ mm-hmm. deel raay mm. di upp di wax lu baax muy sedd <laughs> parce que bis boo fësalee mm. mais am nga naqar lu mu sew sew sew sew ci seeni nekkin seeni doxalin rek ma ne ko mu ñu def la noonu te buñ la defee noonu rek song la mm-hmm. te la ci ëpp buñ la songee daan mm-hmm. man quoi mënuma yàlla yàlla kese moo lay taxawee njabootu buur wala buur song la te duñ la daan waaye nag dëgg mën mhm. na ko waaw mënuma gor fu mu ko fekk jullit fu mu ko fekk na ko wax mhm. parce que boo ko waxul yaa tooñ sa mhm. boo amee yàqin fii kat yàqute ak yàq mi ngi fi di delloo ginnaaw li nga xam ne moom mooy sama réew nga di ko seetaan bu boobaa yaa ngi tooñ sa bopp hmm. yaa ngi tooñ sa bopp yaa ngi tooñ askan ci gis-gisu euh, Macky Sall kon hmm. man foofu lay waxee hmm. dafa gëmoon ne Karim Meïssa Wade bu fekkee liñ ko dénk euh, defu ci dara mais mbir mi day yombaleeral waaye nag lan Ablaye Wade nanguwul mooy ñu joxoñ doomam joxoñ rek la wax de. Mm-hmm. tuuma yi parce que joxoñ tuuma ya daal di commencé di tegu. Mm-hmm. dara wéru ca ba fii ñuy wax kenn mu wax ne Karim Meïssa Wade ah def na wala ah deful coow lee fi nekk rek mun naa wax ne baat ak justice Sénégal am na loo xam ne indiwoon na ko ci fànn boobu bañ nañ ko daan waaw loola ci ñi nga xam ni dañuy gëstu ba léegi foofu dañ ciy gëstu ndax la ma waxoon sànq avocat Karim Wade dañoo dàqale mhm. waaye ala kulli yàlla ki nga xam ne moom mooy euh, euh, Macky Sall président Macky Sall tey te fa nga xam ne fa la taxawoon ci jamono yooyu war nañ ko ko mën a nangul ndax Idrissa sekk jaar na ca am na ay directeur de société mhm. yoo xam ne jaaroon nañ ca am na ay ministres yoo xam ne dinañ leen daan ci biir li nga xam ne moom mooy seen mandaa de ministre di leen fayloo directeur de société yoo xam ne dañ leen di fayloo ci jaar-jaar kenn du ko fésal waaye am na foo xam ne bu fa tolloo moom mhm. faaw wu mu fés te foofu lañ tolloon ak ñi nga xam ne moom mooy Karim Meïssa Wade Macky Sall daal def na la nga xam ne moom la gëmoon hmm. ne moom la war a def hmm. ànd ceeg nag ñoo nga xam ne ñoom la ca war a àndoo hmm. ñoom ñëpp Mbaye Ndiaye Moustapha Cissé Lo moom Macky Sall ñoom ñëpp la ñu buubandoo ñu jël nag li nga xam ne moom mooy seen waar taxaw ci li nga xam ne moom mooy seenu xeex ne bu ñu génne PDS bu ñu bu ñu ca dàqee it ay citoyen lañu ay citoyen lañu nañu samp kon li nga xam ne moom mooy suñu parti dawal ko yàlla jox leen ndam Sénégal fàq ànd ak Macky Sall bi bàyyil xel nag ne euh, mhm. te deuxième tour ba ñu jox mhm. bopp dëgg ki nga xam ne moom mooy Macky Sall. Macky Sall waaw bi ko euh, Bennoo Siggil Sénégal ak Bennoog Tanor ñëpp demee jàppale ji. ak ak Idrissa Seck waaw euh, waaw kon ñoom ñëpp euh, peut-être euh, mun nañu wax ne xëy na du la la la la Macky Sall nekkoon victime moo leen tax jàppale ko mais sentiroon nañu quand même ci euh, sénégalais yi ne àndoon nañu ak Macky Sall du ñàkk sax loolu moo ko may vingt six pour cent yi nga xam ne moom moo tax mun a yóbbu président Ablaye Wade deuxième tour. Euh, ci tënk daal mënees naa wax ni kon moom euh, victime gi mu doonoon ci wàllu hmm. politique ci parcours politique amal na ko njariñ ba tax xëy na tey ni nga ko waxee sax moom moo ci gën a am njariñ si ñi si nekkagum yëpp victime ndax moom moo si jaareegum nekk président de la république ñu daal jóge si si si président Macky Sall le doyen euh, ñëw ci ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko Ousmane Sonko moom itam euh, mënees naa wax ni ci parcours am nekk na si victime selon ñenn ñi ndax bi ñu ko dàqee euh, fi nga xam ni moom mooy fonction publique raje ko si la ko sénégalais yi commencé bàyyi xel récompense bi moo nekk ñu yóbbu ko assemblée nationale def ko député même si euh, ci euh, plus forest la la la jàllee mais jox nañu ko bopp parce que am nañu ko gën a yàgg ci politique te amuñu loolu bokk rek ñu ñu yóbbu la assemblée nationale tey tamit son Sonko nekk un adversaire ci wàllu politique euh, pour le président Macky Sall pour na pas dire même le principal adversaire loolu itam am na ñu jàpp ne xëy na victime gi mu doon ci parcours am moom moo ko may loolu ànd nga si boobu analyse. ànd naa ci ndax dafa fës. Hmm. Euh, xam nga daan na yëngatu ci wàllu syndicat su ma juumee sax 2004. lay yëngatu ci ci wàllu bi nga xam ne moom mooy wàllu syndicat daan yore kaddu parce que kan syndicat mm. da yore kaddu ñi nga xam ne ñoom ñoom nga bokkal euh, bokkal bànqaas ci mm-hmm. ñu jiital ko ci bëreet ga sax jiituwul woon mm. après la jiite ba mu jiitee nag ah ña nga xam ne ñoom lañ jiite woon ñooñu gis ci seen bopp moom mu doon ci ko nga xam ni ak njàmbaar la wone ndax saa bu ñu waree yëkkati kàddu saa bu ñu yëkkatee ka waree yëkkati kàddu dina yëkkati kàddu na xam ne noonu la war a yëkkatee kàddu ba mu sonal lool nag gouvernement bi sonal leen lool waaye ba ñu ne ñuy la lu ëpp ci Sénégalais yi nekk kuy Ousmane Sonko. Mhm. bañ ne dañuy dàq Ousmane Sonko wala ah. dàq nañ Ousmane Sonko. Mhm. lu ëpp ci Sénégalais yi nekk kuy Ousmane Sonko. ci ko xamee. ndax ci wàllu wà géewu bi moom furaas la woon. Mhm. kenn xamu ko ci waaye wàll nga xam ne moom mooy nekkinam ak ay àndandoom. jël li nga xam ne moom mooy xeex bi yanule ko ko ne du ñu bàyyi ñu tër ko noonu mm-hmm. ndax am nañ ko tër de mm-hmm. ndax xam mujj nañ ko tër mm-hmm. waaye bañ ko tëree làmmiñam fu nekk dégg nga ko li ñuy wax ne béy mm. boo koy rey a ah, dina la rey tedd yi kàddoom jóg ñu dar ko ñi nga xam ne ñoom la nekk loon bàyyi wuñ ko kàddoom jóg moom it mu daal di indi li nga xam ne moom mooy fit ak njàmbaar comme da ngeen ma doon tere ma yuuxu ci wàllu syndicat léegi da ngeen ma gis ci géewu politique bi ma nekk ci yéen damay tënk rek de comme da ngeen ma daan bañal samay kàddu ci biir syndicat ak fitna coono yi ngeen ma daan teg dàq ngeen ma ci fi nga xam ne moom mooy fonction publique mu doon inspecteur des impôts mu ni kon nag naa dugg ci li nga xam moom mooy géewu politique bi léegi aw ma ci benn frontière fu ma war a yëg fësale suma kàddu ngir askan wi waxatuma ñi nga xam ne ñoom laa bokkal koor métier askan wi tey kon ñoom lay yore li nga xam ne moom mooy seen baat ci ci fàttali bi euh, sànq wax nga ko plus fort reste moom lañ ko joxoon maanaam ca ndesit ya mhm. comme Aïda Mbodj na mu ko amee woon waaw ak ñeneen yaakaar mhm. waaye daal dugg na député dugg assemblée nationale mhm. la tax mu dugg assemblée nationale xam nga bu fekkoon ne da nga naan euh, askan wi dañ ko top dar ko tuñ ko kon du am for plus fort reste dina fese neneen waaye dafa am ci askan wi ñoo xam ne ñoom ñoo ko bàyyi xel. Mhm. te ñoo ñooñu ko bàyyi xel moom moo ñoo ko jox li nga xam ne moom mooy baatu député. ñoo ko sotle. jërëjëf. Mhm. ñoom ñoo ko sotle. Mhm. mu duggee assemblée nationale it nag mu tombe ak jamono boo xam ne ci Sénégal jafe-jafe yi commencé di gën a tar. parce que contexte aussi daf ciy am solo. ci contexte bi nga xam ne moom la Sénégal nekk. 2017 mm-hmm. ba tey ñuy wax nii. Mm-hmm. jafe-jafe jafe yi dafa gën di fés. Mm-hmm. di gën di law. mu daal di ut li nga xam ne moom mooy porox ndollam te jamono yooyu it nañu bàyyi xel ci ne. Benno Bokk Yaakaar ñi gën a amoon. Euh, daraja laay wax presque ci réew mi ci wàllu politique mm-hmm. parti socialiste mm-hmm. AFP mm-hmm. le parti de Djiboka donc kàngam yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon ci wàllu politique dañoo daal di doon benn benn say ànd ak ki nga xam ne moom mooy président Macky Sall. comme on dit la nature a horreur du vide. waaw boo fi dara newul rek am lu fi toog. ah waaw Ousmane Sonko ak ñamu àndal xereñ ci wàllu politique mais ñun am na am nañu place boo xam ne dañ ko war a jël xalifa Sall mi nga xam ne moom it dafa waroon a am gëdd am taxawaay ci fànn boobu ñu gis tolof tolof yi nga xam ne moom la nekke dinañ ci ñëw xam naa mm-hmm. dinañ ci ñëwaat léegi mm-hmm. alhamdulilah daal ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko. Hmm. gis li nga xam ne moom mooy buntam. commencé di def li nga xam ne moom mooy ay xeexam. Hmm. ba ba ñu demee ci la nga xam ne moom mooy présidentielle ba. ñu ni moom mooy ñetteelu candidat. Hmm. bi gën a fes mi ginnaaw Idrissa ak ki nga xam ne moom mooy Macky Sall. du noonu la. kon mu daal di doon ko xam ne dañ naan Sénégal fu ñu waxee politique. bu ne Macky Sall ne Idriss Seck ne Khalifa ne ne ne Ousmane ci contexte bi nga xam ne moom la ñuy dund hmm. dama wax lii indi émergence Sonko hmm. jafe-jafe yi askan wi dund hmm. Covid bi ñëw ak coow loo nga xam ne nag ba léegi moom jiixi jaaxa ci xelu doomu aadama yi mbiri ki nga xam ne moom mooy aji Sarr lu am la lu amul la waaye en tout cas na xam ne noonu la ko ñii ñi ngan ko nguur gi jëlee hmm. doxale ko tax na lu ëpp ci li nga xam ne moom mooy ndaw yi hmm. ndaw yi lay wax hmm. ne Ousmane Sonko kat tey ñun mooy suñu yaakaar te dañ ko bëgg a faagaagal dañ ko bëgg a faagaagal du nu nangu kenn laal ko doon nag rempart humain am ci moom it technique de communication yoo xam ne moom la utiliser ndax langage yi dafa am solo ngir gën a fësal boppam wane ne moom fi Macky Sall toog fa la bëgg a toog ngir woyefal li nga xam ne moom mooy coono askan wi loolu lañ ko loolu lañ ko bëgg a bañal muy indi événement yooyu nga xam ne moom nga waxoon. mars 2021 ñu mars yu mars deux mille vingt et un yi mhm. ak lu mu jur li nga xam ne moom moo ci réew mi ba tax Ousmane Sonko tey foo dem ci àdduna foo dem presque laay wax ci adduna rek am na fa li nga xam ne moom mooy ndéy ñu gën a yaatal nag li nga xam ne moom mooy seen parti gëm ne am na cër yoo nga xam ne war nañ ko mën a jouer ci wàllu yi nga xam ne moom mooy taxawaay kon moom bu ñuy wax victime boo demee fa nga xam ne moom mooy le sud du pays Casamance ak la ko wër foofu moom dafa mel ni Ousmane Sonko teg na fa loxoom tey maire la mhm. buñ ko xañuloon mu bokk ci li nga xam ne moom mooy euh, élection législative bi mhm. war ñu mën a gëm ne dina doon tey député maire mhm. ndax moo doon de liste tey ñu bari jàpp ne ku jégi Ousmane Sonko moom moo ko jiite loolu njàngat la waaye ñu bari jàpp nañ tey ne ku jégi Ousmane Sonko moom moo ko jiite. moom mooy chef de l'opposition. xam nga baat boobu boo ko waxee ci français rek dafay daal di diis. Mhm. dafay daal di diis ndax chef de l'opposition. Mhm. dafa am noo xam ne noonu lañ koy tëralee ci li nga xam ne moom mooy ab réew. dëgg la. waaw boo ko waxee ci français rek dafay dafay daal di diis moo tax bugguma koo wax ci wàllu yi nga xam ne moom mooy baatu français. d'accord waaye dinañ ne ci wàllu yi nga xam ne moom mooy ànd. ñi mm-hmm. nga xam ne moom la ñu gis ci ku jigi ñu di ko ñu di ko ànd. Mm-hmm. la Ousmane Sonko joxoñ la ci ëpp. Mm-hmm. ñu bari ci la ñuy daal di ànd ak moom. kon moom victime ba nga xam ni. moom la ñu ràññee woon ci ki nga xam ne moom mooy Macky Sall ba mu am jaar jaar yéeg ba doon président de la république waxuma ne Ousmane Sonko dina doon président de la république mhm. waaye dinaa ne tey lu bari ci askan wi ràññee nañ ko. Mhm. jox lañ ko li nga xam ne moom mooy moom mooy gën. jox nañ ko bopp ndax loolu. alors bala ñu yegg si ci Aminata Touré ñu taxaw tuuti ci xalifa sàll mi nga tudd sànq moom itam ñu am lu ñu ko tuumaaloon ca mairie bu Ndakaaru waaye nañu ko tëjee ak doxalin wi nga xamante ni def nañ ko si tax nañu bari jàpp ne moom itam dañ koy bundu xataal euh, fàtte walla xëy na bàyyeetuñu xel ndax lañ ko doon tuumaal am naam amul tey loo mën a wax xalifa sàll xëy na amee ci googu euh, njëriñ wala ay ndomba waaye tey bokk na ci ñi nga xam xam ci politique yi buñ ñëpp déglu leen. xam nga moom dafa doon ko xam ne ci jaar-jaaram déjà dañ naan homme d'état la mm-hmm. ndax dafa teel a doon ci ndawam ku ñu ràññewoon ci parti socialiste mm-hmm. ba jox ci ay ndomb ba mu doon ministre mm-hmm. ba doon maire de Dakar dalam teeyam ak xam-xamam. kenn werantewu ko ci li nga xam ne moom mooy réew mi mu doon ko xam ni bi président Macky Sall falo ñu bari dañoo commencé gis ne dañuy tegante mbagg ñoom ñaar ndax Khalifa en tant que maire de dakaar gis nañu fi ci li nga xam ne moom mooy gis-gisam ñu dem jamono mu ne dafa bëgg uti xaalis pour tabax Ndakaaru dafa bëgg wuti xaalis pour dabax ndakaaru dugg ci li nga xam ne moom mooy marché financier yi mm-hmm. am ci ay bunt ndax yoon may na ko ko mm-hmm. yoon bu ko ko mayee it nga xam ne moom nguur gi nangul ko ko mm-hmm. parce que nguur gi ñoom ñoo ko waroon garantir en tant que maire foofu damay tënk rek ñu bañ ko ko ñu bañal ko ko projet booba tegu ci suuf ñu ne ah kii nag mi ngi wane boppam dafa bëgg a ci suñuy tànk loolu noonu la ñu gisee ñoom mm. waa nguur gi mm. ñu commencé nañ bët fi nga xam ne moom mooy mairie Ndakaaru ñu ne ah ceebak ak diwlin suukar budget la woon moo xam ni dafa cër la woon moo xam ne dafa bokk ci budget bi mu am luñ ci waraan di génne di ko jox li nga xam ne moom mooy askan wi loolu dinañ ko doxalee ca mairie ba mm-hmm. abut yoon mm-hmm. Khalifa Sall ne leen loola ñama fi jiitu woon yëpp dafa am na nga xam ne noonu lañ daan doxale mm-hmm. tegguwuma leen ci li nga xam ne moom mooy suma doxaleen ci jamono yooyu nan ko daan defee rek ni laa ko laa ko defee ñu wéyal nguur li nga xam ne moom mooy seen gëstu ne yëf yi daal am na ay lëndëm lëndëm hmm. tuuma commencé tegu ba ñu jël ne ràpp ci kaso bi wér na wala wérul lii moo indi jafe-jafe hmm. Khalifa Sall ba bokkul ci élection yi nga xam ne moom moo doon présidentielle lu deux mille dix neuf yi hmm. ñu teg ko loxo daan ko ñu bari nag tey boo leen tuddee. Mm. ci li xam ne moom mooy askan wi dañ la naan kii di Khalifa Sall. Mm. kii di Karim Wade nguuru Macky Sall. Mm. sàkkal leen pexe la bëggoon. Mm-hmm. te gis na buntu boo xam ne sàkkal na leen pexe ba àll ne sa ndew. Mm-hmm. Macky Sall ubbil ko li nga xam ne moom mooy bunt yëpp. Mm-hmm. muy waaxoon nu mu ko ci wàllu li nga xam ne moom mooy nguur alors ñu ñu jeexal ak euh, Aminata Touré mi nga xam ne moom peut-être euh, euh, kaawam moo mujjee moo gën a bees muy bi nga xamee ni kon yaakaaroon na ni si li ñu gis moom mooy nekk président assemblée nationale gannaaw ba mu jiitee list Benno Bokk Yaakaar si élection législative yi doon am si weer bi ñu génn mu daal di gis boppam daal di gedd rafetluwul ni président Macky Sall doxale la topp xam nañ ko ña ngi koy ŋàññ ba fi mu ni tey xëy na mi ngi ci yoonu taxawal mbiri boppam ndax tey jii ci dimanche bi dana def jàkkaarloog taskatu xibaar yi ñu bari di xaar ne xëy na dana ca sax annoncé candidature am pour élection 2024 di présidentielle bi ñu dëkkmal est-ce que Aminata Touré yaakaar nga ni victime la ba noppi ndax bu dee victime euh, loolee mën na koo xaalal yoon ci wàllu politique xëy na ba mu am ca leneen ëllëg. victime la kenn du ko lam-lamee li tax mu doon victime mooy ndeete xam nañ Aminata Touré ci wàllu bi nga xam ne moom mooy taxawaayam ci wàllu politique du maye dara loo seq moom day doon loo xam ne lu leer naññ la ci wàllu bi nga xam ne moom mooy doxalin na mu gëm soo ko xasee ba jox li nga xam ne moom mooy ndombo ak ndombo la lu mu mu gëm loola rek lay doxal xam nga kooku kon da naan boo indi baatu tubaab da nga naan mais ko c'est un élément rebelle. Mm-hmm. du xam ne dañ koy jox cër waaye nag personalité nit nit dafa doon loo xam ne lu jar a bàyyi xel lu jar a respecté la Aminata ni mu mel ci taxawaayam ci nguur gi tax na mu bari li nga xam ne moom mooy ay noon ci biir waa nguur gi laa wax de mm-hmm. fa mu bokk ci wàllu politique mu bokk mm-hmm. ci APR mm-hmm. bari ci ñoo xam ne dañ la naan ëpp naa jox cër parce que boo ko ci xoy joxoo cër nu ko neex lay doxale nu ko neex lay doxale li jëm ci wàllu li nga xam ne moom mooy dagan baatu askan wi ngir ñu fal député yi dox na ci ci la nga xam ne moom lañ ko cërale woon gox ci réew mi wala la ci ëpp def na fa campagne ci li nga xam ne moom la ko mëne woon gis nañ ne ca daaneel ba parti coalition Benno Bokk Yaakaar naam cent vingt neuf députés quarante deux députés nga perte quarante sept députés am na ci ñoo ne loola lañ ko tuumal hmm. mais waaw am nañu majorité de justesse de mhm. waaye xëy na waroon naa mën a gën a doxale ne neneen su fekkoon ni gën naa déglu ci li nga xam ne moom mooy campagne bi mhm. ñu ni Aminata Touré jigéen ñu jox ko assemblée nationale Sénégal lu ci ëpp ne ah alhamdulilahi rabil alamin ndax mosuñoo am jigéen ju jiite assemblée nationale mhm. te moom ci wàllu wi nga xam ne moom mooy jaar-jaaram moom Aminata Touré. ministre de la justice ñu def ko premier ministre mm-hmm. def ko fi euh, euh, président du haut conseil euh, président du conseil économique social et environnemental premier ministre premier ministre joxoon ko xam ni day teewal président de la république fu nekk ci àdduna mm-hmm. ah ñu ne am na am na jumtuwaay yu mat mm-hmm. ak xereñ boo nga xam ni war naa mën a jiite assemblée nationale mbett la nit am te ba ñu gisul Aminata Touré turam mbett waaw mbett dëgg-dëgg la nit am te ci fànn boobu mu daal di fësal li nga xam ne moom mooy méram méram moom ca saa si li ëpp ci askan wi ne ah waaw wax na dëgg de bu meree lu li ëpp ne wax na dëgg de bu geddee wax na dëgg bu fit fitar ñu ko xëy na ci li nga xam ne moom moo ci kii eh, xajam tuuti rek mm-hmm. ci doxalinam mm-hmm. mooy ci wàllu nga xam ne moom communication mm-hmm. loolu nag leneen la ndax nit bu meree moom war ngaa mën a séntu ci moom ne mer dañuy wax ne noonu boroom la waaw mën na am ay njuumte ci la nga xam ne moom mooy doxalin ba tey li ëpp ci li nga xam ne moom mooy askan wi dañ ne gis nañ ni ki nga xam ne moom mooy Aminata Touré de mi ko waa nguur gi def mi ko Macky Sall def waru ko woon a def noonu est-ce que nag Macky Sall diggoon na ko wala Macky Sall diggu ko loolu leneen la ala kuli yàlla ñu tey li ñu jàpp moom mooy Aminata Touré victime la ban gëdd nag la ko sénégalais yi jox bu ñu dégloo li nga xam ne tey moom mooy déclaration mm-hmm. jëm ci euh, dajeem bi nga xam ne moom mooy dajeem ak taskatu xabaar yi mm-hmm. danañu mën a nat fan yii di ñëw weer yii di ñëw mm-hmm. ndax fa Macky Sall yegg ci sympathie ba mu amoon ci Sénégalais yi ko yegg ci sympathie bi mu ci Sénégalais yi moom dina ko am am déet waaw waaye daal ku ñu tooñ la mm-hmm. ci la nga xam ne moom mooy gis-gisam moom mm-hmm. ak gis-gisu yenn ci ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Sénégal. Mm-hmm. baax na kon nañu yoon ne yàgg ci mbiram Aminata Touré gannaaw yàgg bawul dara doyen. yàgg bawul dara. te euh, am na ñoo xam ne gëm nañ ko ci biir parti bi nga xam ne moom mooy APR. am xam ne gëm nañ ko ci biir li nga xam ne moom mooy coalition Benno Bokk Yaakaar waaye ci doxalin bi moom ci doxalinam ki la ñuy xamee ndax kii ah, nit ñi dañ koy dar mais dañ ko teg li nga xam ne moom mooy lu jaaduwul nanu ko jàppale mun na créer par thème ah. ngi koy annoncé sax ci ci ndaje moom nga xam ne moom lay woo taskatu xabaar yi. Mm-hmm. bu ko neexee mu ne man créé naa sama mouvement wala créé naa sama parti. Mm-hmm. waaw daal di ne lu waay xëccu deux mille vingt quatre man dinaa ci bokk. Mm-hmm. waaw eh, te bu boobaa dañuy wax ni ña xam ne bëgg nañoo ànd ak moom. dañu gën dañuy war a mën a gën a fés. ci wàllu bi nga xam ne moom mooy wàllu taxawaay bi. moo tax ma ci ni muy wone dundam. feeki weer mhm. ak waa Sénégal mhm. ci la ñuy mën a xam ndax dana am dayoo buñ ko jox mhm. ni ñu ko joxe woon Macky Sall wala ni ñu ko joxe fi mu ne nii ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko. jërëjëf doyen Pape Amadou Fall euh, journaliste euh, di itam euh, vraiment borom xam-xam bu bu ñu nawloo ci wàllu politique ci say jàngat ñu ngi lay gërëm bu baax a amoon mbégte lool dalal la ci démb ak tay bi waxtaanee ñi nga xam ne ci wàllu politique dañu jàpp ne dañ leen bunduxataal bunduxataal googu ñenn ci askan wi sotle leen ci jàppale leen ci ba tax na tey xëy na mu xàllal leen weneen yoon ci wàllu politique buy xaw a gën sax ñaare yoon ya nga xam ne ca la ñu nekkoon ñuy gërëm itam ñu doon teewlu yëpp gërëm jaabu jàll mi ne woon ci jàpp jàppandal gi Fatou Thiam Ngom la woon ci kàddu gi teewluwaat leen émission bi ci réew mi officiel suñu chaîne ci YouTube dig leen daje beneen dimanche incha allah waxtaanee leneen ak keneen jërë ngeen jëf ñu yendoog jàmm jëf jërëjëf. jëf Fatou ñuy ñu leen di ziar di nuyu suñu mbokk euh, auditeurs yeeg seen téléspectateurs yëpp di leen ñaanal rek yoon wi yàlla na ko yàlla gën a leeral. allahumma amin amin ñu bokk alhamdulilah jërëjëf